Pathé Mbodj euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant soxna si. Pathé Mbodj nga nekk euh, politologue amaat na beneen coup d'état bu am ca Burkina Faso euh, déjà ban jàngat nga ci am ci coup d'état yu bari yi nga xam ne mi ngi am foofule ca Burkina. xam nga duñ ñu waat duñ ñu wax ni nopp daloo na ndax am na ñu naan am na ñu ñaar téeméer ak lu toll ak ñaar téeméer ak juróom fukk. ba léegi li fi am ci Afrique xam nga loolu sax. di wàññi di wàññiwaat loolu mooy euh, mooy problème ndax euh, li am am na fu nekk euh, am na Europe am na Amérique am na Chine am na Extrême-Orient li am dañuy compter bu fekkee ni militaires yi jël nañu nguur gi rek coup d'état la mais coup d'état weesu na loolu coup weesu na euh, bu fekkee ni ku mel ni Gabon xamuñu kenn ku dul Bongo bu fekkee ni ku mel ni Togo xamuñu kenn ku dul Eyadema bu mel ni dafa am ñoo xam ne ni ñoo ko yeyoo ñoo ko moom ñooy ngànk nguur gi ba àddina tukki ci jamono joo xamee ni nag bi ñu moomee suñu bopp ak léegi am na juróom at nit ñi yàlla may na leen tuuti xel ndax njàng mi tane na euh, dund bi tane na même bu fekkee ni metti na te bu dund tane njàng mi bare euh, xel day nàcc xel day mbalax ni ko xale yi waxe e, bu boobaa nag dinañ set ni waa li fi amoon de war nañ wax nu dootu fi am waaye war nañu seet na lañ koy euh, rogante ndax mu gën a dëgër dafa naa si jamono yooyu la ñu toll boobu léegi ñii jël nguur rek ni ñoom ñoo ko moom ñoom rek ñoo ko yeyoo kenn xaju si ñu leen di wal ni la keneen xaj na si waaye foofu gisee loolu rek kon mooy am na rëq-rëq si eh, nekkinu askan bi am na rëq-rëq si doxalinu mbirum askan bi am ñoo xam ne ni yaakaar nañ ni askan bi amul ñoom ñoo am bu loolu amee nag madame ah lii am Burkina rek mooy am. waaw gis nañ ko Burkina euh, Mali Guinée réew yoo xam ne daal euh, coup bari na fa mais kaaw Burkina tamit bari na bari goo xam ñu bari ñu ngi laaj qu'est-ce qui qu'est-ce qui se ba Burkina euh, bari ay coup d'état souvent. gis ne waaw. nga nekk Cameroun. dem ba xubi daas mm-hmm. mu wóor ñëpp ni mënatoo mu wóor ñëpp ni bu bu fecc bi neexee feccum liir la yaa ji moo si jàpp mu wóor ñëpp ni Paul Biya mënatul nekk te mu nekk dana am loo xam ni xëy na am na eh, ñu mën a yaakaar ni war nañu mën a gàgganti loolu boo dëkkee si dëkk bu ñuy wax Togo et yaa demaa nekk fa ci coup d'état ba léegi moom ak njabootam ak askanam yore nguur gi bu boobaa xëy na am na rëx ndax nguur gi dañu la ñëpp ko réew mi ñëpp ko bokk réew mi ñëpp koy doxal réew mi dafa am kuñ ko dénk waaye kooku moomu ko njiitu réew du borom réew nga jógee eh, Togo nga dem Gabon takk fa Bongo juddu nañu ba am ba ay at yu bare bare bare xamuñu kenn ku dul président Bongo bu fekkee ni nag foofu la euh, mbir toll si jamono joo xamee ni euh, xëy na xel yi am na lu leen yàlla may xëy na nit ñi am na lu leen yàlla euh, dénk si xel ak xalaat waaye lii a nekk bu ñu ni kon ku fekkee ni ku xalaat ni du noonu ñu yóbbu la si kaso bi bu boobaa da ngay bare ñu fa nekk muy benn yeneen ni tamit mooy mooy ñi ñuy wax ay coup d'état militaire coup d'état militaire xam nga armée bi si armée bi si askan bi la bokk kenn mënu leen si génne xëy yaakaar nañ ni ñoom ak li ñu mën ak ndax li ñu seen taxawaay ak seen i ngànnaay mun na leen may ñu def yenn yoo xam ne ni civil yi mënuñu ko mais xëy na sax li militaire yi def am na yeneen dëkk yoo xam ne bu fekkoon civil yi am na ñëw nañu jëmtuwaay yooyu xëy na ñoom tam seen bopp ñu def ko lii wóor daal mooy réew daal buñ koy pàccoo te bañ ko peccoo euh, réew ma taxawaay bi bu amee jàmm tamit jàmm li du yàgg muy jàmmu civil muy jàmmu militaire su mu nekk nii euh, militaire yi ñoo aay waaye eh, bu fàtte ni am na ñoo xamee ni euh, njëgu mburu bu yokku wala njëgu essence bu yokku tax na ñu dàq nguur kon loolu tamit xanaa coup d'état la léegi lieutenant colonel euh, Paul euh, ne lieutenant colonel Paul Henri Damiba moom nee nañ tekki na ndombal tànkam en tant que président au transition loolu si mën wax mhm. xam nga bëre ñaar koy def mhm. ñett duñu bëre waxtaan tamit bu amee ku nekk dafa war a mën a wax sa xalaat nekk si sa coobare mën a wax li nga xalaat war a wax si gis-gis waaye bu ñu jëlee revolver teg la ko ci eh, bopp ni la signal wala ñu rey la boo signé tamit ñu ni signé na émission bi ah, loolu amatul euh, fayda li am fayda mooy li am àjjuma euh, ay militaires yu jóg euh, indi njàqare indi torof torof ba ñu mën a ni eh, nguur gi soppeeku na jaar si yeneen loxo boobu ba tey ñu ngi naan waa ji eh, démissionnel parce que dafa naa militaires yi loolu mooy seen mooy seen sac ñu ni en fait ñu wax taxawee tamit waa ji démissionnel waaye boo nee la euh, te xamoo amuto pexe Eh, boo démissionné ba pare ñu jàpp si loolu defe naa loolu kii nga waxu ku daanu si fas daal. Euh, organisation sous-régionale yi comme CEDEAO wala Union africaine est-ce que am na rôle bu ñu mën a jouer ci situation bi am ci Burkina Faso. xam nga xëy na sànq sax si tubaab bi xëy na euh, wax ji xaw na dëgg mais ni ñu war euh, def sa euh, mbootaay ngir waxtaan lu jaadu xëy na mbir yi doxul ni mu ko gisee ak ni ñu ko bëggee waaye defar euh, mbootaay pour waxtaan lu jaadu la ni ñuy war a mën a waxtaan wax naka la ñu mën a gisee ba nga xam ne ni jàmm ñëw si Afrique naka la ñu mën a gisee ba nga xam ni koom-koom ñëw si Afrique ndax bu fekkee ni euh, xëy na koom-koom ak jàmm yéex na egg si si boo xoolee histoire àddina bi ni Afrique toll tey bare woon na état yi fo toll bon xëy na ñoom tamit di fexe nañu ba weesu loolu ba jàmm mun a am wala tranquillité mun a am dafa naa mbootaay yi loolu la ñu mun a def jàppale dimbale xeex ngir jàmm am xeex ngir koom-koom am mais ni mu mën a nag mooy euh, problème moo indi affaire Burkina moo indi affaire Mali moo indi affaire. ñu gis jàmm am pour koom-koom am dégo day mun a am dégo ni mu mun a amee mooy ku nekk xam ni réew ñëpp ko bokk kuñ ko dénk tamit moomu ko waaye bu ñu la dénkee réew nga dafa ne yàq moom ku wax nga yóbbu ndungu si bu boobaa da ngay bare da ngay noonu te boo bare noon nag xëy na lii xew Burkina mun fa xew bu dul militaire tamit di civil yi ndax wax naa la ni yokk nañu ceeb nit ñi fippu yokk nañu mburu nit ñi fippu ba dàq gouvernement kon coup d'état bu fekkee ni noonu lañ ko tuddee du rek ay affaire militaire bu fekkee ni foo yaakaaree ni jàmm amu fa foo ni justice amu rek ne la wóor ni coup ko. ñu gis ni souvent médiation yi ñuy amal euh, du am solution pour yow lan moo ko waral. médiation OUA oh waaw wala CEDEAO. exemple waaw non xam nga bu fekkee ni comme ni ma la ko waxee gis jaan daxuloo ko bàyyi ba mu romb nga topp si kii bi naan lii jaan la woon loolu tamit du weesu la xëy na li xaw Burkina xëy na li xew Mali xëy na li daan xew Mauritanie xew na Mauritanie xew na Guinée Bissau xew na Guinée xew na Gambie dëkk yi ñu wër yëpp yooyu yëpp xew na fa li ñu mën a def ba loolu kii mooy ñu xamee ni e, mbir mi ñëpp a ko bokk te suñu bëgg-bëgg mooy jàmm ak naataange ñu ni waaw kon nañu jéem a seet naka lañu mën a ame jàmm ak naataange e, seddoo mbir yi ni mu waree mbir yi ni mu ware xam ne ni dafay am dafay dund dafay dee waaye boo fa nekkee rek ni bu ma fa jógee dee la te xëy na war nga fa jóge te dee du du la fa fekk bon tey boo jëlee ku mel ni Paul Biya xam ne xamatul sax euh, xametul guddi xametul bëccëg xamul xottu saako xamul baraaya ñu ni ko mooy chef d'état boobu Abdou juuf di soogoo kii Abdou juuf dem na Abdoulaye Wade ñëw na euh, Abdoulaye Wade dem na Macky Sall ñëw na ba Macky Sall ngi waaj dem yow nga nekk fii rek ku fi euh, loolu mënul nekk daal si gis-gisu nit ñi tey loolu mënatul nag bu fekkoon ne nekkoon na mënatul nag. Euh, France souvent bu beaucoup d'états amee Afrique euh, dañ ko ci tudd comme tamit bu Burkina Faso bi ñuy wax ni sax ma France réew France souvent bu beaucoup d'états amee en Afrique dañ ko ciy tudd ne moo nekk ci Guinée ban intérêt la am voilà parce que yaakaar nañ ni la lu xew rek France la euh, du ñu seet lu tax mu mën a xew lu tax mu war a xew ndax mu euh, mënoon nañu egg si fii ndax mënoon nañu moytu lii li am mooy euh, xëy na ñun suñu bopp ñu ngi rëccu fi fii ñu toll yaakaar ni dafa am ku ñu fa teg te fi ñu fa teg tamit ci juróom benn fukki yi weesu tamit bu fekkoon ne amoon nañu fayda xëy na waroon nañ ko mën a weesu waaye bu fekkee ni kenn nangu ko weesu boo xamee ni fleuve Sénégal bii ñu ngi wax te mi ngi débordé wala débordé wul bu ñu la waxee ni ñaata ndox moo fay jaar xamuloo ko France moo la koy wax bu la waxee Sénégal gi jëm si pétrole ak gaz ñaata pétrole la ñu am ñaata gaz la ñu am xamuñu ko France moo ñu koy wax France mooy yóbbu mooy natt mooy yóbbu mu yóbboo wax la ni ñaari kilo la bu fekkee fukki kilo la mun la fukki kilo juróomi dërëm la bu fekkee kilo ñu ko waroon jaay fukki dërëm xam nga bu boobaa xale yi nga xam ne tey macha allah yàlla def na euh, ni ñu moomee suñu bopp ni ñu yokkee mbirum école ni ñu yokkee euh, mbirum xam-xam tax na ba xel yi di xaw a nàcc tuuti fii dañ naan fii nii fi ñu toll nii te ñu waroon ko weesu euh, xëy na ñooñu ñooñu ko teg kon lu am rek ñu daal di dem si ñoom waaye boo dégloo lu xew Burkina waaw ah, xëy na gaa ah, li ñuy def ah, ambassade France def nañ ko ba pare waaye eh, ku bees ki daal wax na leen daal ñu ñu ànd ak daal daal eh, ñu jéem a seet daal eh, ni ñu mën a régler seen problème ñoom te ñu génne si France ak yooyu. est-ce que li xew ci sous région ñu koy gis mën na xew fii Sénégal pate Mbodj mun na xew fu nekk mun na xew fu nekk mooy bu ñu demee ba nga xamee ni amatuñu pexe ñàkk pexe pexe la ñàkk pexe pexe la mooy boo xoolee Senghor boo xoolee Abdou Diouf boo xoolee Ablaye Wade daal ni loolu yëpp dootul am Macky Sall rek mooy am bu booba dangay indi tolof tolof ndax saa yu nit ñi fippoo dafa am lu ñu teg seen kaw loo xam ne dañ ko entouré bu ñu fippoo dañ leen teg coono boo xam ne ni mënu mënuñu ko muñ bu boobaa nag a ah, lu xaw déggoo li ma la wax man la Mauritanie coup d'état depuis soixante dix huit quarante cinquante ans Mali Guinée Guinée Bissau Gambie bu fekkee ni Sénégal rëcc na xëy na uh, askan wi ñoo tax ñu bu fekkee wi jàpp na te ñi nekk ci kaw jàpp ñu bu boobaa tamit dañuy indi coono boo xam ne ni mun nañu daal li am Mori Mauritanie li am Mali li am Burkina li am Côte d'Ivoire li am euh, Guinée Bissau li am Guinée Conakry am Gambie ah mun na am Sénégal léegi nag ñooy seet naka la ñuy doxale suñu réew man fulla lañ koy taxawee man faale lañ koy taxawee moytu ko wala bañ ko moytu. Pathé Mbodj euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. ah maa lay kii soxna si Moreau. may fàttali analyste politique